ñoo leen li ci yéenikaay yi yéenikaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ndox mu bari mi wàcc démb ca Touba ci la yéenekaay yi xëy di xuus pàccaxi l'observateur ji fu waay tollu di ko seen Touba tout au noonu la ko bindee ci xëtamu njëkk maanaam Touba léppum ndox la woon démb moom yéenekaay bi di l'observateur mi ngi ñuy xibaar ñaari doomi aadama yu faatu démb ci taw bi ca Touba mu di benn xale bu jigéen bu tolloon ci juróomi at ca marché Ocass fa la faatoo ci biir bu fekk baax gine dib commerçant bu tolloon ci ñeen fukkeet moom it ci ndox mi wàcc démb ci Touba ci la 30 du matin ci la taw bi tàmbali la mu sotti ci dëkk ba cim ndox nee nañu ëpp na 140 millimètres li mu jur ci dégâts l'observateur nee nañu kenn xamul nu mu toll ca kër ñang lu ëpp fanweeri miir daanu nañu fa nga jóge fa dem Guédé jàll ndaamaato ci dem askan wi ndox na leen seeni kër yàq seeni bagage diwaanu Mbàkke sax lobs mi ngi daanaka da tëmb démb Les Échos bind ne 140 ndox yi wàcc démb ca Touba faat na fa ñaari doomi aadama nangu fa quartier yu bari sóob askan mat ay téeméeri téeméeri kër yu seen borom bandone ndax yu ca ak seen dakawoo di ay yàqu-yàqu yu dem ba jéggi dayo muy ca Ndaamaatu di ca Kër Ñang Touba mosquée guy mbind Daaru Marnaan ba Mbàkke yéenekaay mi ne nañu foo ca dem fekk askan wu nekk ci jaaxle boole ko tonk li am démb ca Touba journal quotidien déluge la ko tudde ba dañu fàttali ne lu jege 140 millimètres ñoo wàcc ci dëkk ba jur na fa ay dégâts yu bari bokk na ca dégâts ya ñaari bakkan yu fa rot ak ay kër yu bari yu fa daano ñu daanu ji ci journal Rewmi Quotidien li mu xëy ci xëtamu njëkk moo di ab nataal buy wane inondation yi am démb ca Touba rawatina ci li wër jumaa ji nu ndox mi toll démb ca Touba rek Walf Quotidien gis na ne jaaxle gëm fa jur toll na ko ndax ay dégâts dégâts yooyee mu di lorange yi journal L'As mu bari wàcc na CREI di cour répression enrichissement illicite ginnaaw bi ñu ko fi jëlé kuréel gi ñu taxawal ci réew ngir mu war ko wut di pôle judiciaire financier magistrat yi ca war nekk ngir doxal ko démb lañ leen tek ci tok toog kay bi mi ngi ñuy waxit gi di pôle judiciaire financier li ko ak a bokku na ci xex walu corruption xex walu blanchiment d'argent financement terrorisme ak i njuuj yu am ci marché public journal L'Info ñu ñaar fukki magistrat ak juroom ñaar ci wara leen garde des sceaux installé ba jox leen seeni ngànnaay ngir ñu war ko liggéey kàdduy Mbàkke Fall ci xet mu njëkk kay bi moy xamal magistrat yi seen warugar ay agent public yu tudd képp ku ñu tudd ci jalgati mbaag ñu blank jëmee ci àllu réew mi yéenekaay bi nee nañu ña nga xam ne gaañu ñoo ngi ci sa kaw ci kaw loolu journal témoin xëy na di ñu baaxee ñenn ñu seen tur nekk ci listu ñi ñuy tere ñu génn ci réew fukki nit ak juróom benn la ci yéenekaay bi xëy indi muy Mame Mbaye Niang di Mansour Faye Manar Sall Gabriel Kane Farba Ngom Alioune Moussa Bokar Thiam Moussa Sow mi jité won Puma Samuel Sar, Antoine Félix Diom, Abdoulaye Seydou Sow Cheikh Omar Anne Mamour Diallo Lat Diop Mame Boye Diao ak Mamadou Gueye ñi journal Le Témoin ne nañu bokku nañu ci ñi tere ñu génn réew mi ñi jité réew mi nexi tubab di Abdoul Mbaye xëy di wax ak ñom ci l'Observateur yene kay wi ci waxtan yu mu xëy Cheikh ak waa l'Observateur mom jital parti bi di acte, mang fay xam le ni mu gisee réew mi tàmbali ko doxé dalu am xel nee ne wa akhlu projet bu dé projet bi ñu wax lu am la kon gisul ana lan motax ñukoy neub askan wi askan wi li leer ba leer moy ku ci xëy xol xibaar bi ci xët mu njëkk point actif foo amuk jaxle point actu nee nañu ma nañu Madiambal Diagne mu ne ci diirub ñetti weer primature gi Sonko jité dépensé na 12 milliards 100 millions turbine mel ko nan ko té mutané ko nak présidence de la république ndax ci jamono ji ñuy waxi 12 milliards 100 millions yu primature dépensé ci ñetti weer présidence mom dépensé na fa 34 milliards 31 millions journal libération xey nañu yeggee ay tapalé di mafia yu douane Sénégal feeñal ci porum Dakar ay importation sans déclaration lañu yene kay bi nañu ci woowile wala taxna amna am na ñetti transitaire. yuñ ci jotta japp jàpp yobulen kasso Dubai Port World sax biko ko douane Sénégal feeñal dajalee ba tiiñal ko mom jotna fay lu toll ci ñetti milliards journal libération mi joxe xibaar bi tek na ci diñu ñu xibaar ne amna ben déclarant en douane bu ñu tudd ci mbir mi ñu naan ko El Hadji Malick Diop mom dañu ko téré won mu génn réew mi mu jaaré roso bëggoon daw fa lañu ko téggé loxo les assureurs du Sénégal ci projet Bidium ci digitalisation attestation